Je euh, voudrais euh, remercier bu interview aussi ministre bi nga formation Le euh, renforcement de capacité monde c'est un monde digital certes mais le monde ne peut pas se faire sans les femmes du coup si nous avons un renforcement de capacités, de nouvelles connaissances acquérir à l'issue de cette formation kenn ku ne ci ñun di nga mën soit nga taxaw sa propre entreprise soit nga dem liggéey ci société et dans tous les cas c'est un plus pour la femme et quand on dit que ne femme yokk na maanaam société yokk na man en tant que femme je suis journaliste reporter mais en même temps dama yor sama agence de communication marketing et événementiel euh, euh, formation bi nag di benn aubaine ci man ndax dina ma permettre connaissance ya ma ma renforcer ko am aussi de nouvelles euh, connaissances ba plus compétitif sur le marché. waaw milieu presse mom ñepp xam nañ né yombul metti na trop rawatina ci jigen ñi mais nak adina dara yombul aussi te li ñuy wax rek euh, persévérance dara soo ca nekkee da ngay gor gorlu dem ci à fond rek yalla dina la dimbalé metti na trop pour jigen ni ndax c'est pas évident ngay xey di genn yenn heure yi sa kër pour regarder benen heure c'est pas évident yenn des fois mu am yenn manifestation yeeg rien qui

bañ ñu fi lima ci waxat aussi moy euh dafa am ben appel bu may lancer parce que dañoo jóge ci ay élections lu yàggul ñu am ak bo xamné ni ne euh, le président Abdoulaye Wade da koo mayoon jigéen ñi mooy la loi sur la parité ñu war ko mëna respecter nak ndax lu jigen mom lu ñu war ko ko mën a mais il est regrettable de constater que ne ci yenn bureau municipal yi ak yenn ki yi euh conseillers respecté wuñu loi parité bi ñu ciy sonnaat nguur gi di ci sonnaat élus yi di ci sonnaat waaye itab yoo ca def ndax du leen wàññi dara ku ne la mu moom ñu jël ko jox ko ko jigéen ñi nag ñu gën a gëm seen bopp xeex bu ñu gëm ne bu ñu nangoo gëm ne ñun ñooy le maillon faible déedéet su quand on parle d'une société jigéen mooy base société ba kon suñu gëmee suñu bopp rek dëggal suñu bopp dinañ mën a doxal société bi